hôpitaux de moom li ñu leen di gën a ñaax mooy que Sénégal fu mu toll nii ñaari service neurologie moo fi am ci 18 millions d'habitants nañu jàppale Sénégalais fépp foo xamante ne ne région la ci Sénégal war na am service neurologie war na am tamit ay scanner ci district de santé yi ba nga xamante ne dinañ mën a def prise en bu gaaw ci AVC am na benn produit boo xamante ne nag dafa cher waaye nag buñ ci amee am subvention ci état bi dina dimbali population sénégalaise waaye produit bi mu ngi jar ci un million ba un million 200 waaye nag dafa amul sax waaw dafa disponible mooy thrombolyse bi. boo nee AVC rek accident la dafay ñëw brutalement day ñëw. mooy maanaam jékki-jékki sa loxo bi mel ni lu diis lu nagam bu ñu la waxoon sa yëkkati sa ñaari loxo benn bi ngay mën a yëkkati beneen bi doo ko mën a yëkkati bu baax wala yëg-yëg bi wàññeeku. ci benn côté ci yaram bi wala dégg-déggin bi wàññeeku wala gis bi jékki-jékki benn bi di gis benn bët bi di gis beneen bët bi gisul wala mu jékki-jékki loolu fu mu amee rek. képp kuy sénégalais fekkee ko war ngaa mën a jàppale ni ko ñu yóbbu ko hôpital ñu defal ko scanner xool ndax def na AVC am déet